mais depuis on a vu que politique mon surtout avec ce nouveau régime là Il n'y a que de la politique waaw li nit ñi ah, dit, parce que nous méthodes la ah, pour la première fois la commission lay beaucoup commission la commission ay politiciens ak rectifier amna ci ay ñoo xamna ne bu ñu leen épinglé mais sacc mënul weesu loolu waaw et puis loolu ñuy wax noonu depuis 1960 batay Cour des comptes yag na fi waaw mais c'est la même chose

Euh, waxuma la sax impact mais balaa impact sax xel mu nu ko nangu waaw mais système de prédation bi dafa yàgg Sénégal ah xale ngeen mais sous Senghor noonu la détournement yi bari woon maa ngi lu kilifa yu bari yu ñu fi jàpp ñu détourné ONCAD bi ngay dégg ngandam société la woon boo xam ne moo yoroon affaire gerte noonu lañ ko détourné sàcc complètement USB noonu lañ ko daaneele banque la woon noonu lañ daaneele BIAO non lañ daanelee BN euh, euh, DS bi fi nekkoon non lañ daanelee yeneen ay banque ak banque sàcc bi dafa yag Sénégal c'est comme une culture et une tradition lo xam dafa wara a jeex illaa yow mi diini léegi on s'étonne qu'au 21e siècle deng moment bi nga xamné ne nañ des ruptures avec Ablaye Wade que ça s'est empiré et que ça s'empire davantage deng avec ce nouveau régime là bu ken gis nga amna lo xamné bu ci kenn nekk di ko raay dégg 17 ak di euh, euh, nangam ak nangam c'est des Sénégalais comme toi et moi. ak yow ah ñu jox leen suñuy kees ñu sàcc ko on a qu'à les prendre yóbbu leen kaso. c'est tout et puis nangu seen lépp bul ma dog nangu seen lépp nangu seen lépp retirer tout ce qu'ils ont dégg nga delloo ko état bi c'est ça on a vu des hommes d'affaires il y ne bëgguma am tudd tour en général. Hein? Il prend 22 milliards au niveau de la caisse de euh, consignation et de dépôt. ci ay truchement yo xamné am ma terrain ñu jël terrain bi joxaat ko ko doli wat ko ne tabaxal ni gis nga. Ah, moi je ne mais tuduma kenn am na ñeneen. c'était pour que sénégalais ñu pas non non non euh, c'est-à-dire que c'est-à-dire que nga en communication vous faites benn nit rek tout le dafa mel ni da nga jël problème bi yëpp ah wàññi sax dangar wi centraliser ko ci ah c'est quelques individus ñoom ñoo ko def. c'est pas ça mais c'est à l'échelle rapport yi cité. c'est à l'échelle par exemple rapport des cours des comptes. Hmm. dafa am rapport de di cité. dama c'est à l'échelle du Sénégal cours des comptes ah amul xara ñu jàpp ñëpp amul moyen wu jàpp je te dis que c'est quelque chose c'est toute une chaîne. Hein, la corruption au Sénégal waaw dama la bu xayma corruption mu dem ay 2500 milliards par an est-ce que dégg nga li 2500 wax milliards par an par exemple lu toll ni budget Mali ak Gambie ak Guinée ak Guinée-Bissau ay nit sàcce ko pàccoo ko dem dem seen yoon ah est-ce que xam nga ni ampleur bi toll euh, yoonu sax kenn daf leen a mënta jàpp ah Cour des comptes wax na ko déjà gour, lo sax ba génne li waaw ce que je veux moi euh, ñu xam ne que li maara d'Italie, si ba mu un suñu dëkk kenn xamul kañ la dafa gën a yàq dëkk bi bu ci impact yi nga xam ne moom la wax ñu dem fenn on ne pourra pas se développer je l'ai dit plusieurs fois taux de corruption dans les pays européens nous ngi koy xayma maximum de 7 pour cent dégg nga ci dëkk en Afrique ñu entre 25 et 50 du produit intérieur brut africains yi tout ce qu'ils ont c'est volé ce qui li nga la colère c'est que j'ai dit que c'est des gens comme toi wala man la ngay nommé teg leen ñuy et ensuite ñu jàpp ci di fu une commission nangam-nangam ils n'ont ah, pas rendre l'argent du peuple c'est ça qu'on veut dire euh, professeur bu ñu waxee ci côté koom-koom bi jusqu'à présent euh, dañuy gis ni euh, fii problème yi dafa bëri éducation bi am na problème santé bi aussi hôpitaux yi doyutu bëri na daal maanaam détournement boobu dafa mel ni ay projet la yaa nga xamante dañ ko wax a samp mais xaalis bi dañ koy koppar gi dañ koy jël daal di ko dugal feneen mais sooy liir fan yi toujours léeg-léeg ngay liir ba ci àgg sa yaram daw boo yoroon xaalis da ngay wacc ci tay bu ma yoroon cent milliards damay wacc ci hôpitaux yi deng euh, euh signé ay partenariat pour nit ñi faju les gens meurent aux urgences Sénégal lu toll ni Sénégal nit ñew ba urgence am accident wala da feebar ñu ne ko duñ ko jël deng nga ah fekk fayu ba mu dee dans les couloirs on en parle tous les jours abri provisoire yi xale yaa ngi fi soxlawul ngay seeti la pauvreté ak effet yi fenen ah ay taalibe il circule, c'est nos enfants Ça, yu ma c'est talibé, j'ai vu mon enfant Wa, loolu lay xalaat Mais sama m'a donné nekk ci tali bi habillé de guenille dégg nga ah di tàllal loxoom di wut fu mu lekk léeg-léeg ci seddaay bi nga fekk leen ñuy ay carton de sangoo tout cet argent là nous la waroon jël. ak nous vole cet argent là di ko euh, yóbbu. may ma tuuti maanaam bu ñu xoolee bu ñu xoolee bàyyi ma tuuti rek. Euh, yenn village yi bu ñu gisee yenn gox yi fii ci Sénégal jusqu'à présent famille ça pour accoucher sa problème là, parce que euh, gox bi ñu nekk du am hôpital. mais voyez-vous, déggoo li ma les wax li ma la wax kay dama la li flagrant moi devant toi waaw tu le vois tous les jours ba bàyyil àll ba parce que da nga sori. mais mais regarde devant toi regarde Sénégal yëpp daw si nañu Dakar fune ñu mbar fa que nous ñu tante fa dégg di 2 2000 francs ak 3000 francs pendant ce temps-là des gens di piller les caisses de l'État J'ai dit que c'est inadmissible il faut que ça s'arrête il faut que tous les Sénégalais ando taxaw nek que ça suffit parce que yow la ray man la ray waaw keneen lañuy ray yeen gis nga impact lolu impact bobu day dem ba ci yor ci sa salaire parce que société yi waroon am kom kom di fay pour sponsoring bu bari ci seeni télé mu duggu ci yow fenc ci yow ñepp lay laal on ne peut pas faire du surplace 1960 ba ce qu'il pense que moom mooy moom mooy gouverner état ah hein, mo gëna nul dama né ñi fi nek ah hein, comme ki fi jógee ko la faloon président nga am un bilan bu équivalent ak sen boss, wala un meilleur bilan xam nga mooy lan ah hein, TR plus ULATUBA, Touba plus BRT plus Nangam plus Nangam plus Nangam loolu ko économie c'est tellement nul ça on peut on peut prendre un chef maçon ou un entrepreneur ko ne ko defal est-ce que tu as compris L'économie, du euh, économie c'est l'administration des ressources par rapport aux besoins illimités des hommes on administre ce nga nous avons fait fi nekk yaxanal ko organiser ko y a des choses qui, sont de l'ordre de l'immoralité ce n'est plus acceptable que des Sénégalais hein, di développer les contrats qui signent c'est des scandales Contrats, qui pétrole barke de parenthèse rentabilité le taux de rentabilité pour l'exploitation du pétrole 6 pour cent 6 c'est-à-dire 1000 000 milliards Bonnet, 60 milliards c'est moitié le taux de rentabilité 1000 milliards Nous avons 60 milliards moitié le taux de rentabilité Sénégal 30 Nous, avons 30 c'est-à-dire que sur 1000 milliards de recettes Sénégal 30 30 milliards la ci am 30 milliards. bu totalement, total 70 42 milliards Sénégal 18 milliards Money. Li, mo war a arrêté illa yow mi on n'est pas des gis nga ah dofuñu génn jàppuñu il faut que ça s'arrête waaw euh waxna ko nak il faut que nous changer suñu idéal de vie mais ils sont malades pour avoir quatre femmes dégg ah, ah, avec des maîtresses ah, ay ñaari quatre, quatre, yu ñàkk fayda deux villas tu signes des choses qui condamnent toutes les générations Dengue, raise ce peuple complètement J'ai dit que ça ah dafa war a arrêté illa yow mi di économie de rente bii nga xam ne moom lañ économie de rente mooy lan c'est distribuer des privilèges dégg à des particuliers au détriment de tous uh-huh. mooy loolu ah, c'est ce qu'ils font jël terrain 5 hectares jox kii 100 kii et cetera mais professeur yo yo yow professeur at euh, kii euh, man dafa am ci euh, ak barke ay affaire au cours des contacts ay yoyep amna lo xamné man man euh, daf ma jaaxal wa legui les bailleurs de fonds ñi nga xamné ñom ñoy abal Sénégal di jox Sénégal ay koppar waaye ñom tamit xana ñom du ñu jéem wax euh comme euh, parce que damay dégg souvent ñu euh waaw euh, banque mondiale day ñëw joxe comme par exemple je donne tu ci ci tu ci wàllu football FIFA buy jox fédération yi day top xol fi xaalis bi dem. Mais jox est-ce que l'on tamit eh, eh, bailleurs de fonds yi ñoom def loolu. mais déjà bailleurs de c'est des complices. ah voilà. waaw euh, da ngay seet projet yi ñu fiy tek Sénégal yëpp ay catastrophe la. quand ba ci ya ngi wax sport stade olympique bi ñuy wax fi ñaata la woon 42 milliards moo doon le projet initial. soudainement les gens sortent ils viennent avec 155 milliards. dégg nga société yi signé ko tubaab bi si parce que ci ñoom lay duggaat. France a eu facturé en Afrique ñëpp a ci àddina bi mais mais qu'est-ce qui se passe parce que c'est comme ça qu'il travaille Donc, bailleurs de fonds les banques mondiales, c'est comme les clubs de Paris le monde de la finance nous sommes derrière nous. ñoom derrière nous, di bu xoj la li nga il arrêter mais c'est pour ça pour que nga mën a delloo ñooñu seen xaalis ñooñu nga xam ñoo dugaloon seen xaalis fi ak ay surfacturation yu dul mais je dis dal ben chose hein pour ñëpp xam ko ay cours des comptes ay bla bla bla deng académique ak nangam nangam amul sens tu sais ce qui se passe c'est notre argent ñun ñoko mom vous laissez notre argent c'est terminé waaw fay nañ le 3 millions xana bett xel fa la yeb mais amna ñoo xamné ils sont nuisibles ils ne doivent même pas être dans une société yow dëkk boo xam ne ñëpp dañoo ndool li ñu amuñu lu ñu lekk naan on te donne 5 millions par mois wala 10 millions on te donne une villa on te donne une voiture tu voles aussi l'argent du peuple ah mais nit dafa war a xalaat c'est comme ça que vous devez aborder ces problèmes là ci y plateau yéen journaliste, il faut que ce soit engagé mu bañ a doon petit déjeuner ñu ngi reetaan nag ñu ngi naan beneen plateau feneen ak beneen plateau feneen mais c'est extrêmement grave c'est gravissime euh, avant sax Cour des comptes avant cours des comptes c'est les procédures au niveau des administrations dafa yomb trop ministre toog ak budget am sage son comptable mu toog fi, les ni di ordonner ay dépenses saawaay di signé muy dem na le xaalis sax ministre wartu ko gis c'est ça le système mondial tu n'ordonnes rien doo gis dërëm tu as une politique tu parles de ta politique les dépenses ak yooyu feneen la beneen secteur boo ah c'est qu'ils yow dara. quand ils reçoivent ils regardent am guichet unique ils xamné ne lépp lu indi ñu traité ko fa ba xam lan la mais yow da ngay ñu budget bo xamné ta signature donc elle est les pièces comptables yi sa comptable du servir ça suffit pour retirer de l'argent tax mu c'est parce qu'ils ont accès à l'argent un directeur de société nationale non regarde-moi Un scandale bi un sénégalais lambda qui se permet de voyager en business class hein, A yor acpex dégg 340 millions de frais euh, euh, euh, de déplacement hein. mais mais mais même Michael Jackson daawul def loolu. Mhm. hein. ci dëkk boo xam ne les gens ne mangent pas. cet individu là ak képp koo xam ne day def loolu. hein. dafa warul yendu ci suñu société. Mhm. wala di toog fenn une heure de temps wala deux heures de temps. Mhm. waaw problème bi ñun la. dégg nga Cour des comptes ak a ñoo xarañ IGE ak a ñoo mais seetal même kii défal way yow bul yegg justice jox ma man ma apprécier sama bopp ça veut dire déjà beaucoup de choses dégg nga institution yi de contrôle yi fi nekk Sénégal yëpp dañ lay jox bopp rocci mi téye sa loxo dégg nga doo dem et puis on te donne pas les moyens ah La sénégalais de euh, de déggee noonu Pour des comptes d'al. et je pense que aussi euh,